voilà ñu ngi nii euh, jàkkaarloog euh, Dieydi Djigo je crois que mooy réalisateur euh, Salma mun nga ñu wax effectivement prix yi nga gagné fii ci Teranga Movie Awards bi bon dañu gagné six prix meilleur costume meilleure musique meilleur euh, espoir féminin meilleure interprétation euh, féminine meilleure interprétation masculine ak euh, meilleure série six prix yooyu lañ gagné peut-être bu ñu à fait. bii mooy sa première sa première euh, mooy sama première série. bala def ay série documentaire la doon def. def naa documentaire bu bu demoon Fespaco ci Omar Blondin Diop mais Salma mooy sama première fiction mooy sama première série. première euh, fiction mooy suñu première série avant loolu dañu doon def ay ay documentaire ouais, bon ça fait plaisir parce que quand même euh, dañoo liggéey liggéey bi métti woon na bëri woon na ay défis Euh, relevé nañ ko prix bi euh, dañ koy considérer comme comme récompense ak consécration bu liggéey bu ñu def ci série bi rek. grand nuyu naa la. maa ngi lay ziar sant bu baax. grand sénégalais yi faa nañ la de. waaw xam naa mbëggeel gi ma leen bëgg moo tax ñu faa ma waaw non sa dégagement sa punch sa sa sa ni ngay interpréter loolu sénégalais yi bëgg nañ ci lool de. Euh, alhamdulilah loolu ça fait plaisir. danaa dolli yokk yokk yokk yokk liggéey bi rek ñu gën a bëgg Euh, mais dégg naa vous avez tout raflé jël ngeen lépp am ngeen six prix nan nga Salma lan nga muy expliquer. waaw euh, Salma euh, dafa dafa dafa prix yi quoi dafa mérité prix yi parce que tournage bi dafa métti woon Invictus dafa daj lu ne pour pour saison bi jeex. waaw et les acteurs aussi dañoo joxe. donc euh, euh, techniciens yi donc c'était une famille au fait qui travaillait waaw genre dox dajale woon ku nekk euh, mais liggéey bi euh, dañ cee boole ñëpp def ci seen kéemtulaay kattan donc tey bu amee prix yi waaw bànneex la ko bànneex la waaw bànneex la. liggéey rek. liggéey rek euh, vraiment et aussi on en voulait on a un jeune réalisateur xam nga mu jël chronique defar ko et tout def ay modification def ba mu bien et mettre ñu dans les conditions de tournage aussi ñu góorgóorlu rek liggéey après ça a donné ce que ça a donné ñu ciy sant nag bu baax parce que cela ne veut pas dire que ñu amul prix dañoo démérité non il y a eu euh, un jury day am sélection day am présélectionnement sélection et tout ba ñu mujj nag am li nga xam ne moom moo ñun ñoo gagné chance la mérite la euh, yàlla baax na voilà casting bi casting ciblé la woon ñun comme tu l'as dit Souleymane moom star la nit doon ko xam euh, dama ko xamoon déjà man dama dama ko fan woon déjà je le regardais que fan déjà et euh, bu ma bu ma lire histoire u euh, histoire u bi qui a été adaptée d'une chronique directement moom personnage personnage bi moo leeroon ci Rachid directement Souleymane moo moo ñëw sama xel Souleymane moom moo ñu présenté Aïcha Ba Euh, Aïcha Ba mooy kuy interpréter euh, Salma te tous les tous les autres acteurs ak actrices ay casting ciblé la euh, la woon dañu jox jëloon ay profil yu ñu intéressé woon yu ñu remarqué woon ci yeneen série et ñu décidé leen intégrer leen dans Salma et voilà nous voyons avec les résultats que def nañu choix yu baax yi quoi. on a, on, a, on Mais, mais je la vois, mon premier, premier film, première, première série, bi ma ko seetaanee gis la ci rek laa xam ne quelque chose de sérieux et puis ngeen ngeen jógee ci ay dem ci daara wane ay wasifa ma ne waaw ñii ndax nit lañ mais après j'ai compris. waaw as aspect boobu dafa nekkoon aspect boo xam ne sax bañ ma présenter projet bi aspect boobu bokkoon na ci aspect bu ma gën a neex parce que euh, dafay refléter suñu réalité. Euh, mënuñu nekk di def ay série aussi di def lépp di roy bay tegg li nga xam ne ni tey suñu réalité la te mun nañ ko wane euh, day gën a original day gën a naturel waaw donc mu amoon ci série bi nekk affaire boo xam ne nii euh, neex na ma ci euh, dama koy dund bokk na ci li nga xam ne ni loolu daal moo nekk li nga xam ne ni mooy lu ëpp solo loo xam ne nii man moo ma gënoon a frappé ci présentation projet bi d' accord grand xam naa dinañ dinañ amaat gën a yaatal incha allah. incha allah rabbi d' accord merci beaucoup jërëjëf. waaw gis nga ci série Salma bi nga ji si rôle boo xam ne Sénégal yëpp dañ ko dañ la cee jéppi. loolu ñu mën a wax ci loolu. ay yow def nañ lu ñu miin nag sénégalais yi def nañ lu ñu miin ndax man dañ may jéppi rek malheureusement du ma joué rôle bu baax mais pour wax rek ne euh, dans la société y' a toujours euh, des gens yi nga xam ne du ma wax ne dañu bon mhm. mais peut-être ñu ngi ci beneen yoon bi nga xam ne il faut que ñu wone un peu benn facette. pour que nit ñi ku ci reconnaître sa bopp yàlla na néew nag ku ci reconnaître sa bopp nga changer sa jikko rek xam ne àddina am solo waaw donc il faut vraiment mu am un rôle négatif et il faut que nit mu incarner ko malheureusement ou heureusement souvent day tomber ci man waaw. je crois seen internet gis ngeen ko El Hadji Moustapha Mboup moom laa jàkkaarloo nekk ci série Salma nekk Siré yaa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mais trophée yi nga téye ñan ñoo ko gañ. ku ma si jàppale sax laa wër quasiment Salma jël na lépp macha allah. mais jël na yéen jël ngeen meilleur interprétation meilleur costume. waaw loolu la yàlla def mais tamit mais tamit il faut pas oublier que dafa am liggéey bu tar bu metti bu nekkoon si ginnaaw que que ça soit acteur technicien réalisateur ñëp ñëpp ñëpp amoon na benn job bu metti bu metti bu nekkoon si ginnaaw donc euh, li gars yi di wax naan li anglais yi naan work hard xam nga fayeeku donc tey loolu loolu moo indi lii yëpp quoi ñu ngi ciy sant yàlla mënoon nañ liggéey loolu doon tamit affaire yi génn euh, Sénégalais duñ ko adopté et on a vu que Salma a dépassé les frontières xam nga loolu yëpp sant yàlla la franchement. mais man loo ñu mën a wax ci Salma bi ngeen rafale sept sept prix lan wax ci lool ak liggéey bi naka la demee woon. waaw wax dëgg fa liggéey bi métti woon na woon na trop te xam nga rek li ma wax benn affaire lépp képp ku liggéey da nga gis résultat te Salma maison de production bu bees tàkk la mais wax dëgg fa ay jeunes fa nekk. ay jeunes yu xarañ yoo xamante ne dañoo pare pour liggéey te incha allah dañoo bëgg jëlee cinéma sénégalais fu mu nekk nii yóbbu ko muy yë muy ci kaw a kaw incha allah ci kattan suñu borom. naka ngeen lan ngeen dencal sénégalais. waaw euh, Salma ñu ngi waajal nag pour deuxième saison bi incha allah bientôt yàggatul dara de ñu ngi làqatu ñu ngi liggéey mais incha allah ñu ngi ñëw léegi léegi dal seen kaw kontaan naa grand merci beaucoup jërëjëf. merci grand merci Salma saison 2 bi mu ñëw euh, très très bientôt allah ñu ngi commencé neen si liggéey euh, après après Salma am nañu encore yeneen projet série on vient on est une jeune boîte hein on a à euh, six mois neuf mois d'existence am nañu ay projets yu bëri équipe bu équipe bu ñu am équipe bu jeune la suñu moyenne d'âge c'est vingt cinq ans donc euh, je voilà on a l'avenir devant nous daal bëri nañ projet Euh, Salma saison 2 mooy buy ñëw dans l'immédiat mais am na yeneen yu ñuy préparé euh, ba je peux pas encore en parler quoi. deuxième saison bi c'est à quand. Euh, ñu ngi koy togg. ñu ngi koy togg je suis mal placée pour dire une date pour donner une bien sûr mais je sais que ñu ngi koy togg. dañ ko yàkkamti. waaw mais dina ñëw xam nga rek bii dafa ñor moo tax ba mu ñëwee ngeen kontaan bàyyi leen rek ñu mijoté ko baaral ko. waaw loo ñuy wax sa sœur Fatou Jupiter ngam ne moo initié lii. waaw mais kontaan xam nga Fatou Jupiter sama sama xarit la euh, je pense que ñëpp xam nañ ñu depuis ci C'est la vie euh, ci la ñu xamante d'ailleurs mais boobu ba léegi quand même ñu ñu am ay relation yu am solo relation euh, déjà collègue relation sœur aussi et sama gars la maak moom alaaji la ñuy woowante. alaaji la may wooy ma koy wooy alaaji mais macha allah di ko féliciter parce que il faut oser le faire quand même xam nga Sénégal fii lu ciy série Sénégal lu fiy film li fiy ñëw pratiquement ci côté cinématographique dafay am solo yu mel ni ñu koy répéter moom mu def keneen def keneen def keneen def loolu dafay jëmale cinéma sénégalais ci kanam te loolu la ñu soxla. merci beaucoup merci à projeté ngeen def ko y' pas eu y' a ay problème non je sais euh, moom moom moom moo def ay sorties yam y' a pas de, y' a pas problème à notre niveau nous on prépare notre saison de ñun ñu ngi liggéey c' est pas la scénariste c' est ku euh, bind chronique bi. Euh, ñun dañuy adapter chronique bi donc pour adapter tu prends des scénaristes mais idée originale bi moom la donc euh, bon. Euh, man ci li ma liir ci internet bi euh, il paraît qu'on l'a pas visité on l'a invité wuñu ko euh, euh, projection bi pourtant mu ngi fa mais je crois que problème bu amee wala ñàkk déggoo malentendu c'est peut-être autre paramètre du foofu parce qu'elle était elle était là-bas lors de la projection qui a d'ailleurs été une réussite hein. on a rempli deux salles d'à peu près 700 places on nous avait même proposé ñu ubbi ñu ubbi troisième salle bi ñun ñoo bañ et les gens ont payé de l'argent pour regarder ça loolu dafay woon ni euh, Sénégalais yi doon bëgg a Salma et je crois que c'est plus intéressant de se concentrer ci loolu plutôt que ci les les petites querelles yoo xam ne bon c'est c'est souvent c'est commun quoi dans le monde de la production voilà. Euh, on parce que c'est c'est très très bien c'est qu'on est suñu propre awards ñun. Euh, il faut que euh, l'excellence l'excellence sénégalaise soit d'abord reconnue au Sénégal afin que nous soyons reconnus dans le monde et euh, je crois que moom initiative am ci sens boobu la nekk et c'est ce que je trouve vraiment très louable on ne peut que l'encourager et surtout la remercier pour euh, ce genre d'initiative dafa ni xoolal acteurs yi Salma yi ñoom ñoo raafale yëpp mais taxit ñoo fi fees maa ngi ni jàkkaarloo ak sama grand euh, Mass koori ci lañ ko xamee. Uh-huh. grand nga ñëw joué. ci uh-huh. Salma. Uh-huh. ngeen rafale prix yëpp. lan nga ñu a wax ci loolu. non léegi avant may kii bala dama naan kii mooy sama grand. waaw bokk na si ñoo xamante ne ñoo ma formé te wax dëgg fa fu ma gis taalal ma micro grand maa ngi lay encouragé ci kaw ci kanam. waaw macha allah maa ngi nuyu mbokk internet ñëpp. waaw jóge si masse bi déew dem ci imam Khalifa. Mhm. Seydi Salma macha allah ñëw jël lépp luy prix ñu jël ko. dañuy doon sant yàlla suñu borom waaw macha allah ziar naa sama grand. li ma gën a impressionné mooy rôle bi ngi joué tellement ni nga mel wala seen bon xam lu nekk ak ni nga koy ni nga koy ni nga koy ni nga koy ni nga koy gàttandoo on m'a présenté le projet. Euh, ma lire sama personnage bon je me suis dit que lii warul metti parce que naturellement fii ñëpp fën donc nga woo nit bu fën si lu fën <laughs> day gën a fën <laughs> mooy loolu Xalia. Euh, Xalia d'ailleurs moom moo jël meilleur prix espoir. ah bon. seulement macha allah daal waaw moom moo jël meilleur prix espoir. kon macha allah macha allah. ok lan ngay wax Sénégal yi ñu ngi wax ni peut-être je dirais pas que Salma mooy porte bi ubbi carrément cinéma sénégalais vers le monde mhm. mais tey. ñu ngi def pas boo xamante ni ñu ngi wane ni Sénégal entre parenthèses l'Afrique en particulier je peux dire a de quoi compter maanaam na na gars gën a dooleel seen i seen i artistes je veux dire en en en en d'une manière générale que bu gars yi gëmee li nit li li ñun artistes yi di def si ginnaaw réali et tout xam nga affaire bi mën na mën na mën na jëm kanam saison 2 bi gars yi ñu ngi koy laajte incha allah ñu ngi si préparé bon. d'après écho yu ma dégg je peux dire que maximum d'ici deux mois on aura quelque chose incha allah. bi mooy sa première série. en tant que acteur waaw. en tant que acteur ah. waaw. merci beaucoup ok jërëjëf. merci.